Euh, muy bis bi nga xam ne euh, ci la ñuy fàttaliku Serigne Sidi Mouhamed Mbacké di euh, moom Serigne Mouhamadul Amin Bara Mbacké di fukki fanu baraxlu nga xam ne ci la euh, yàlla dogaloon ci la wuy ji boromam waaye nag euh, ab sëtam di caatu Serigne Sidi Mouhamed di Serigne Sidi Mouhamed Mbacké di ko amal fii ci xaaju euh, naar moom lañ ñëw taxawee bés bi lépp loo xam ne xew na ci bés bi wala lépp loo xam ne aju na ci bés bi incha allahu taala danañ leen ko dégtal ngeen amee ko nu am solo muy waxtaan yi nga xam ne danañ fi am ak yeneen ak yeneen di ngeen ko am ci Mouhalim TV incha allah. way naa la ngir sa baay siidi muhammad la sëñ bamba doon ñaan ci sët yu taxaw ci yeesal diine jile sëñ ahmed mbàkke ca ngaaw zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal mustafa tajtahidu ci diine rek nga teg mboolem jabootam teg ca jëfal moodu lamin may maamam siidi muhammed mbàkke ci diine rek la teg mboolem jabootam teg ca jëfal moodu lamin may maamam siidi muhammad rafet na xam-xam rafetal na diineem teg ca jëfal Moodu Lamin may maamam rafet na xam-xam rafetal na diineem teg ca jëfal Muhammadu Lamin may maamam amiina amiina wa sallallahu ala nabiina wa mawalaahu jërëjëfe Sëriñ Tuubaa moom mi nu may maam Cheikh Ibra Fall ki lay boroom mi may waltuf binaaw bi bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala hadil amin sayyidina wa mawlana muhammadin wa assalaamu aleykum wa rahmatullah eh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar ci turu daayiratu asxaabul amin bu tuuba eh, di sant nag ak gërëm euh, waa dëkk bi bii di xaajinaar nga xam ne ñoom lañ fekk si euh, wax dëgg yàlla moment bi moom kenn ku nekk xam na ne jot amul waaye nag depuis ñu ñëw fi ba léegi daanaka waa daayira bi defuñu dara ñoom dañoo jël lépp tee ko def ko seen yëfu bopp di siyaar itam daayira bi fi nekk di Kanzul Muhtadin bu Serigne Sidi Mouhamed tamit ñoomit amuñu seen fay ndax du ñaari daayira benn daayira la euh, dafa dina rek benn bu ci ndekk ndigal la am bii di asxaabul amin bii di kamzul mahtadin waaye lépp benn daayira la di santaat itam euh, ñi nga xam ne ñooy kilifay daayira bi ku ci mel ni sëñ Moor xam naa ne dafa xaw a am ay gàllankoor moo tax ñëwut ak Abdoul Aziz ak sëñ Modou mais ak sëñ Moustapha buñ limee dañuy juum waaye lu ma doon wax rek wax naa ko sëñ bi euh, man moom damaa jëlale ñun mag ñi ci daara bi waaye gone yi sëñ bi boo amee looy ñaan booy bu nga ñaanal ko tànk yi daara bi ndax wax dëgg yàlla ñun amuñu jot nekkuñu ci daayra daanaka daayra bi mën naa dem at benn yoon lañ ciy dem waaye ñoom ñii chaque jour chaque àjjuma ñu ngi ci daayira bi di nam na bi kon yaakaar naa Pastef bi yëpp ñoom tout tànk yi la wax dëgg yàlla man maa ngi sàkku ndax waxoon naa la ko nee naa la man bu ma amee lu may ñaanlu nga ñaanal ko tout tànk yi moo ma ko gënal fuuf ndax amuñu seen fay ndax fii ñu taxaw ñun ñoo fooroon a taxaw te comme que suñu jot muyuñu ko ñoom ñu nekk ci yaakaar naa ñun luñ am lépp ñoom ñoo koy def te bu xew-xew amee ñu ne ñu jiitu leen ñun lu ngeen wax rek noonu la kon loolu yaakaar naa ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di sant itam suñu yaay yi nga xam ne ñoom la àndal ñu bàyyi koo Touba amuñu seen fay ndax bu leen neexoon du leen ci fekk wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant ci turu sëñ Sidi Mouhamed mii toog ak mboolem njabootuk sëñ Baara gi nga xam ne ñoo ngi ci jataay bi man nag la ma waxoon man bu ma amee lu may ñaan ci àdduna sëñ Baara laa koy ñaan lu mu amul soxlawu ma ko lu sëñ Baara amul rek soxlawu ko yàgg naa di ko wax man sëñ bi ñun doyloo na la ci lépp xooluñu su sa tuug tànk ñu amul lenn wenn melo wu ñu xool ci yow dul sëñ baara ndax sama woy jur balaa mu fiy jóge waxoon na ma wax boo xam ne dama ko mas a fàtte de ramoon ba àdduna soppeeku ba nga woor sëñ Amet mi te yaakaar naa loolu waxu jur la woon te xam naa ne dinaa ko sàmm bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla sëñ bi mën naa ne man moo ma yar lu nekk ci man rek moo ko ci def man moom laa mas a xam moom laa mas a moo ma jàngal lépp lu ne ci man rek moo ko ci def kon man awma saw fay awma sax fay waaye nag tout tànk yi lépp loo leen ñaanal rek doyul surtout dooley poos ndax am murit mënul dëkk rek ci di wax naan damay liggéeyal sëñ Tuubaa te yorutul dërëm xol bi mën na fee nekk doole ji mën na fee nekk xel mi mën na fee nekk waaye loolu lépp bu àndut ak am koom rek liggéey bi day des kenn ku ne xam na ni sëñ Tuubaa moom liggéeyal ko poose ci gën a gaaw wax dëgg yàlla ndax bunt boobu ko a tijji di nga ko tijji te loolu nag bu ma sañoon nga jëkke ko ci tuut tànk yii ñaanal leen bu baax a baax a baax baax ñoo am doole poos am wér ak mbooleem jullit boo xam ne teew na fii tamit nga ñaanal ko ndax xam naa ne kat boo ñaanee aajo yi dina faju bu baax a baax a baax ndax man kenn du ma wax kan mooy Sëñ Ahmet man moom kenn du ma wax kan mooy Sëñ Ahmet xam naa bu baax xam naa ko xam naa li ne ci moom ndax man loolu du moom moo koy wax du keneen moo ma koy wax man man xamal naa sama bopp kan mooy kii toog man xam naa ko bu baax kon nag sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yow itam ndax amee na la ak cant ndax sëriñ bu mel nii nii mu mel yombul ndax yaakaar naa bu kenn xamul it ñun am na lu xam ndax bu dee doxit def nañ ko tuuti gis na li ci àll bi ak li nekk feneen ak feneen ak ñëpp ci baree baree bari seenu doxit des fois da ngay dem sax ba am ñoo xam ne doo leen nawloo te loolu lépp gisuñu ko ci yow kon dañuy sant ak gërëm ndax ku sañoon rek fu mu sa turub sëriñ nga mën a siggi waaye ñun nag fu la tuddee rek mën nañoo siggi ndamoo ne yaay sunub sëriñ ndax bu dee lu ñaaw xamuñu ko ci yow bu dee sutura bari la nga ko torop loolu moom ba ma ko xamee ci yow yàgg na bu dee joxeet macha allah kon dañ lay ñaanal suñu borom guddal sa fan ba nga sub sa baay ba Cheikh Sidi Ahmed aw fan ci barki sëñ Baara ah ñun nag xam nañ li sëñ Baara amoon te di ko joxe bu doonu dàll la ma ne waree yaa ko yor xam nañ bu baax ne seddu nga ci sëñ Baara tey jataay bii ñu toog ku amul soxla toogu fi ndax nit moom bu noppee am soxla wala mu noppee am mébét day wuy ju boroom kon ñi fi toog ñëpp kenn ku ci nekk. la nga xam yaa ko la lañ nekk sa xol yaa ko xam nga fas ko ci jataay bii te xam ne sëñ Baara mën naa faj lépp sëñ Baara mën naa faj lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. muy ñaay Sidi ak Moustapha muy kàddu yu dëggu di ko seedeel ci fi toog dëkk bi ku nekk mën na wax sama kàddu ndax séq naa ko ñoom ci jëf ju rafet. ci nekkin soo gisee ma jox ko Ndiaye Sidi dafa bari lu may fàttali ma koy seedeel sëñ Moustapha ak sëriñ Xaarim ñu fi toog euh, dafa am jamono ji may nekk ci daara ji wàcc ci kaamil ñu war mu defaral ay laax bi ko suñ njawar di jàmbat am dafa moo yónnee dugub moo yónnee dugub indi ko ndoob ñu defar ko eh, suñu xaar yi ma leen seedeel ni barke dugub jooju moom ni ñaay siidi mi dëkkalu ko yaakaar naa 2012 laa fi ñëwoon néeg bi ma njëkk a nekk biñ koy perom le 12 décembre 2012 la woon booy weñ ñi 2013 ngay tàmbali ba tey ci vingt 2024 loolu yaakaar naa fukki at yi mat na ñaay Sidi mii de boolam boobu mosul teggiku kafteeru café bi mosul teggiku depuis 2013 ba léegi ma lekk ko walla ñu tuur ko ay tànk mosul teggiku ci kër gi mu wéet mu wéttaliku bu wàccoon sax benn trois heures toog ay fan gisuma day jàpp ni sax daaraar kër gi ñëw ne ma fan yi damaa nekk ci nàngam moo tax damay am mbégte su ma toogee ci jataay yu mel nii ma jox ko sama kàddu dina dal sama xel kon suñu xaadim sëñ Moustapha sëñ xaadim waaw dama leen koy seedeel rek moo tax ma jox ko kàddu yi waaye ku nekk nag mën na ko jël ci man te nit bu la féetee fenn fi rek euh, dafa bokkoon ci sëñ baara mooy man nitam man nitam dafa ma daan dafa naan ñëw ci kër gi di jàmbat di jàmbat wéetaay gi man kon ñaa seet doomu aadama mutul wéet mutul wéttali ku la wéttali bis dina ñëw nga ñu denc ci suuf ku la wéttali bis dina ñëw ko ñu gunge ko ñu denc ko ci suuf kon doomu aadama mutul wéttal fu nit nekk yàlla ñaareel na la yàlla rek moom mat wettal ma ne ko doomu mu foo ko gisul tegu fa tànkam demu fa dafa amul soxla waaye bu doon diggante màkk ak Siin dina def yitte ba yegg foofu foofu soxlaam la waaye fu yàlla def nit am fa soxla dina ko jaral mu yegg fa loolu suñu waxtaan wu yàgg yàgg bu bare bari loolu nag ma leen koy seedeel taxawaay boobu la ñëpp am ci man euh, Moustapha wax na lu am solo yéen sang si ma seedal leen nii ñoom ñi sa xam nañu euh, dinañ ma ko nangul daayira bi ñi nga xam ni ñoo ko ŋànk est-ce que am na ko ci am fukki at yu mat wala ci la yam mooy ñii nga gis ma teg sama wet xel xel yu rafet la yar ñu xaadim jaay nga ñii nii suñ la waxee li ñuy liggéey da naan naan te nekk du dëkk dañuy toog ak seeni moroomi yi nit sax nan leen kay jébbalu ci sëñ di wax ak moom ba dañuy bëgg nit ñëw nuyu ma wax lu rafet wala wala bëgg a sax du ma xam ko mu doon te xale yi ñoo koy liggéey loolu ak bëgg la man nag damay wax ni seen liggéey la waaye ci mag ñi lañ ko gisee ndax bu mag ñi jiituwul woon duñ ko gis duñ ko man ak seeni waajur loolu sëñ bi nga ñaanal leen ñoom ñëpp nag waaye ne ko sëñ Moussa gis nga ñii li ñuy tuuti tuuti dox doxalinu daayira dara ump leen li may wax waa daayira bi xam nañ ko xale yii ngeen di gis gisuma ko ci am 10 ans waaye buñ la waxee li ñuy liggéey ci daayira bi ci lal yi basan ci wuti rajo ci toog waxtaan des fois sax su ma déggee Tafa Njaay mu wax dama naan kii wax ji fu mu ko déggee li muy wax fu mu ko déggee ci wax ju jub loolu nag mën nañu yéem waaye du yéem man bi ma jógee daara ja 2006 benn at la màggale sama kër waajur daan ne lii daal mën na maa dem beru yi màggale ni ku nit ñi defee fii yàlla rek fi nekk ak Cheikh Mamadou Lamine boobaak léegi màggal bi ginnaaw suñu xaarim fa jaañ xëy ji bari na lañ ci umb waaye boobaak léegi ma seedal leen ko ñuy màggale màggalu Cheikh Sidi Ahmed dañ koy def des sax ñu desal ba yut taayra bu mag bi laa ju ma leen alal nag ndax yaakaar naa mosul leen a fàttaliku benn at bu ngeen dajalee ñëw jébbal ma ko loolu moom ma ko ci yéen man damaa gëm li may wax sama soxna si Mariama damaa gëm li may am ci sunu borom lay jóge tegu sama loxo lu nit am lu mu rëy rëy loolu moom feesu sama bët bi damay ñaan yàlla bànneex ak naqar yam ci man man toujours loolu lay ñaan yàlla des fois sax dama naan ko su mettee wala ma wala ma yëgum nat ak may bég ndax bu jàllee li ma ciy jàngatee day bari te day neex dafa dem ba loolu laa gën a miis ka yi xew nii moo tax la ma leen waxoon ci màggalu Tuubaa ga daa leen di waxaat man Sidi Mouhamed mi ngeen yaakaar ne aw ma droit juum te yéen bu leen juum ñaari tànk moo nekk sama kanam yu Sidi Ahmed yu Cheikh Mouhamadou Lamine bu ma ci teg sama tànk dinaa yegg su ma ko weesoo nag ci ginnaaw laa jëm man Sidi Ahmed mooy sama référence moom laa bëgg moom laa yaakaar moom laay roy. man dinaa dem Touba sa Sidi Ahmed na boon doo dem Touba sa liggéey bi yëggul mu laa te wër na yéen ñëpp na yéen tey jii dinaa dem Touba bàyyi bañ mool ba noppi mu jaar ci digg mool yi sëñ bi ne ko ba fanaan bi Touba woon léegi naa leen waxoon naa dinaa dem Touba pour war na rek ni meloon ak njabootam ñun ci loolu lañuy dund eh, lu waay am yi yéene naa la ko màggal gi Ousmane wax na ko mënoon naa toog biir kër sëñ bi wala ma toog usine wala ma toog sama kër yaay def waaye li ma gëm te leen ko wax lu ma am bëgg naa ko bokk ak waa xaaj yi mën ak ñoom duñ am lu ma am bëgg naa ko bokk ak ñoom su ma neexoon ministre bu nekk teew fi bu nekk teew fi ku nekk teew fi yàlla dénk na mais loolu amul njariñ li ñu yor ay ndombay tànk yàlla leen ko jox bu ëllëgee duñ duñ ko doonati. da leen romb fii sax doo xam ne ñoom la boo wékkul ci ñoom yàlla mere la loolu laa gëm li ma gëm daal mooy ngeen dund ko xam ni taalibey Cheikh Mamadou Lamine ngeen day loolu seen bopp. doyloo seenum sëriñ te wékki seen i biir ci yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ku ko def doo juum te doo tumuraanke li Moustapha wax bërki dem daf ma woo wax na dëgg ne ma ñaanal ma tuut tànk yi ma ne ko li ma lay seedeel de du ma julli waxtu mukk te lu ma sama waajur Cheikh Sidi Ahmed ñaanalu ma sama bopp su ma noppi la ma cay teg taalibe yi moom yàlla booleel ak waa dëkk bi ma def muy xaaj mu ne ko ñeent yi moom waxtu julli bu nekk dina génne sama génne kon na sa xel daal te maa ngi gëm ni fu sama taaliba nekk lu mu sori sori dara umpuma ci moom kon yàlla defal na ma ko lu ma bëgg a xam ci sama taalib bi su ko jébbalu ci man ci ay seconde mën naa koo xam waxuma la taalib mën naa koo xam ci keneen waxuma la taalib ma yàlla boole loolu dara muy cëru Cheikh Mamadou Lamine ak Cheikh Sidi Ahmed yàlla leen ko joxoon te da koy joxe denc ko jëmalewu ko fenn li may wax ni ku bokk ci Serigne Touba am na màndarga bu koy mandargaal ba saytaane bu la gisee danaan ki ci déreeti Cheikh Cheikh Cheikh Ahmadul Xadim la loolu loolu ñu sant Mbakke ñëpp yàlla defal na leen waaye daa am lu koy yeggale loolu cër bu suñu boroom la ginnaaw yonent bi kon kàddu yooyu kàddu yu seede la rek di ko seedeel tout tànk yi ci dëkk bi muy kan suñu muxtadir nga xam ni ndox meeg kafe geeg suukar seeg yëpp ci seen ndimbal am naa fàll bu noppee mu jox sëñ Modou mooy wax seen tur mu jox sëñ Xaadim Jaañ mu waxtaan ci sëriñ Touba noonu lañ ko sàkko sëñ Yuusu ñu ngi lay sant bu baax mënoon nañu am ku nekk nag waaye man maa ko sàkkoo noonu ndax luñ ci def lu dul yàlla ak sëriñ bi Cheikh Sida Ahmed mu tëdd duñu ko baal ñu ma neexoon woo fi waxtaan ndax yàlla dénk nañu ko su ma ko waxoon dama koo bi noo ko bëggee dàq waxtaan sa ëmb siiw la ñuy wax doon jàngkat bi gën a siiw yàlla defar nañu ko danaan noo waaye li ma soxla mooy liy jóge ci xol dem ci ak lu ñuy fàttali Cheikh Mouhamadou Lamine boo gisee ma am fu ma yegg damaa jàpp ni dañoo desee xam Cheikh Mouhamadou ci ni mu gaawee ni mu mënee nitam ni mu mënee boppam ak li ko yàlla defal maa ngi wax Ousmane ne ko doomu aadama buy ñëw jamono day tànn waajur bala moo ñëw te xool suñu xaarim Fall daan ne yitte ji nekk ci moom ak mën a taxaw doomu adama de naa jaar naa wàcc ci kii mu doon sama waajur suñ baara li jiitu muy ñëw daal tasenteeg yan bi metti lool mu am ñeewante ci Sëriñ Tuubaa ne day jaar ci kii mu doon waajuram moo tax bi mu ñëwee sëñ Moussa Ka ni yenu yenu bàyyi ba la bëggoon ni ni cas aw daam sëriñ benn ko toogal muñal ba saam mooy ba yow man xiyaam suñ baara bi bi ñëwagul ci fi mu nekkoon daa gis natt yi doon ñëw ak ni suñ tubaa doon liggéeyoo mu mu tànn ñëw ci Cheikh Mouhamadou la ci suñ tubaa waaye ñëw gi ngir ngir ngir ngir ngir ci nattu sëriñ bi ngir jàpp si moo ko taxoon a ñëw ñëwee suñ tubaa ne ko toogal ba yowmal moo tax am na fulla yu bari bi mu ko nii lii sëñ na defal leen mooy bàyyi ma koddu nga wax ne xam ni buy bind yi la nekkoon nit ñi di ko teg ay weñ yu tàng du ko yëg ñuy togg ba war a yàq muy tibb ci loxoom ak tibb yi xal loolu ñi fekk nañ ko buy mbind gi yëggul loolu suñ baa da leen wan ne suñ tuubaam ñi togg bu dee toppee sawara rek weesu na mënal leen ko suñ Musaa Jaw a ngi nii kenn xam ne suñ mujjoo waaru xay bu sëriñ Bara wan nañu ne sëñ Touba weesu na ko def na ko ci moom mooy nit ñi taxaw mu leen di wax li xew yu bëree bëri yoo xam ne damay wax ni ni ñu sëñ Touba digal sëriñ Bara moo signé lettre bi ko ci ay actes yu mu def kon nit ki dañ gën a toog toog di xalaat kan muy sëñ Bara wépp ko sa lépp nag mu nekk sa kanam ndax ku ku yàlla beraloon la ku amoon cër la loolu nag moo nekk ci njaboot gi yëpp Cheikh Sidi Ahmed noonu la meloon bi muy ganee àdduna Ousmane dina ko wax sëñ Baara ni sëriñ Ba Touba te taxawoo woon di baamu xat gi am mbégte ci ñëwam noonu la sëñ Baara amoon mbégte ci ñëw Cheikh Sidi Ahmed ma ngi koy wax ni ko sëñ Cheikh Sidi Ahmed ba muy ganee àdduna booba fajar gi leer gaa ngi dugg leer gi mi ngi dugg mu ànd ak moom ñëw jamono sëñ Baara taxaw taxaw ci ni sëñ Tuubaa taxawoon ci mbiram mu mu doon ko ci lu bari nag mënees na ko waxtaan ndax ku nekk sa waajur mu raq sa ndigg ci sa tëbin te maa tarakal abaa illal awlaad waajur li mu yor du ko bàyyi la ak njabootam bu ko njaboot ga xeeñto fit bi foo ko takkoon weesu na ko jom ji noonu sell gi ak diini ci soxla noonu fulla ju mooy bu daan am soxla taalibe boobu Abdou Diouf mi ngi fi ndax bi Abdou Diouf di sol kilo di ñëw ci moom naan ko damaa bëgg a doon président sëñ Cheikh Sira mi naan ko da ko doon gëmu ko te tuddee na ko doomi Abdou Diouf mi moo tax bu daan am soxla ji moom da koy woo téléphone na ko soxla si bu mu fanaan loolu yomb tey ku am relation ak président da ngay négocier wala loo jot ci moom mais moom taalibeem lay lay lay waxal coupé téléphone am àggoon na ci bu ko bu ko deful mu taal otoom jóge lu dem sekki fa mu nekk ngir taxawaay bu amoon ci njaboot man bu manoon nitam wala ay kàddu seedal rek suñu xaar yu fàgg di ko seedeel sama njabootu bopp te di leen ko seedeel ngeen ngeen ñaanal ma leen suñu borom taxawu leen li Sëñ Tuubaa wax ci xoqa loolu xam naa ne mu ngi ci ñii murid bu amul bëgg ba noppi dëggal xidmatin aw bi xubbin aw xaddiyaat ci liggéey yoonu njub kàddu yi ma baa mu woon ci màgg ga laa leen di waxaat ku sugg ci man jébbalu li ma soxla ci yow mu doon digal wala mu doon àddiya foo nekk fonkal waxtu julli fonko say waajur te lekk lu lew bul yemale dara ak yoonu sëriñ Touba bi koo gis mu sant Mbàkke jàppee ko Sidi Ahmed bu leen xool kenn ci yoon wi ku sant Mbàkke di xool ci moom lu ñaaw wala di ko wax bari na ñu fi yàqula ñoo leen yàqal ñi sant Mbàkke wala Serigne Touba de sin maam bu ñu taxawoon ci sën bi di solo yi sagar leen Serigne Touba defal faaw ñu jot day yàgg rek mais wax sëñ Moussa yoo xam ne ko des fois nga gis ko xam ne si da nga naan kii lan la mën a sante Mbàkke moo ne teraanga la ko yàlla defal cëram da ci sëñ Touba warmal leen te nag man ci njub laa leen xam ci mbaax damay dégg yu bari nit ko wax dama koy weddi maam yaakaar naa maa ngi koy wax bu yàggul ci jotaay bi fii nii yaakaar naa Moustapha mi la de kuy jàmbat ak tëjug tëjug sëriñ suñ suñ suñ xaari bu ak sëriñ bu tëju moom ñaar ñu koy fëgg ñaar kese la ku sëriñ bu woo ak ki sëriñ bu wóolu sëñ xarit léegi ki sëriñ bu woo bu sëriñ bi def 15 jours ci këram dina ko xaar ndax sëñ bee ko woo ndax su nëttoo woon a xaar du wuyu ki sëriñ bi woowul bu gisee sëñ bi moo tooñ boppam moo tooñ boppam jërul naan du ma du ma du ma xaar kenn ci bunt loo sëñ bi woowul bu la neexee da nga weer soo ko mënul nga delluwaat mu am yu bari yoo xam ni dafa am koy utiliser sëriñ bi nit la yor ñaari tànk ñaari nopp ñaari loxo amul xel di lekk di naan boo analyser jëfam ju baax ak ju xol lu baax la di ko wormaal di nga ko naw ñu ngi ko suturaal ngi jëmmi Serigne Touba sëñ Modou Moussa loolu la ko Serigne Touba waxoon bu ëllëgee ay Serigne Touba dina bari boo jàpp muy man waaye nag ci jikko ju rafet ci jikko ju rafet loolu daal kàddu yu mu leen dégg ci njaboot ci kanamu kilifa yi waaye la ma waxoon ca màggal bi lay waxal ku jóge fii nekk ci ndigal yaakaar yàlla yëpp yàlla nekk ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad jaamu yàlla yaakaar naa di nga ñëwaat ne ma li ma waxoon dëgg la ci yéen ñii nag di nga dem ba doo taxaw ci benn sëriñ buy bu aaba naan ko defal ma li doo fukk benn bunt nen kii laa yaakaar am nañu am nañu ci xam li ma wax moom leen ko waxee ca màgg na leen nekk li ci li ngeen war a nekk ba déwén ku ci nekk moom li ma mën a garanti di waat ko ci si xamul la mi dem ko gis moom ku ci nekkul nag yaa tooñ sa bopp kon di leen jig mooy jaamu yàlla suturaal seen bopp ak seen i waajur waaye ngeen jël seen lépp wékk ko ci yàlla ak Cheikh Mouhamadou Lamine ko defee rek di ngeen daal leen di wax ngi jégalu kàddu bu baax a baax naa nga jox euh, président kan suñu tëddi noppee sëñ Xaadim Diagne man maa mu waxtaan ma sëñ Tuubaa te xam man damaa gëm ni sëñ Xaadim mu waxtaan sëñ Tuubaa la a loolu gëm naa ko. suñu xaarim Njaay ni muy dundee sëriñ Touba waxtaan suñu Touba la gën a mën jàng suñu Moussa Diop maa taam waxtaanal ma sëriñ Baara Ousmane yi maa taam waxtaanal ma Cheikh Sidi Ahmed ndax moom rek la xam te mi ngi jaar ci tànki baayam kon loolu daal la am lu ma ci lu ma ciy dolli suñu xaarim maa ngi lay ziar as na may wax mat na seede nga baal ma nag dinaa seede tuuti nag suñu xaarim Fall suñu xaarim nga baal ma ko nag waaye soññee la moom mii waajuram mi ngi woon Kébémer am ñoo xam dañ ko daan romb te da dem fi mu nekk mbaaxeem mën nga faa def semaine doo ko gis dëgg la wala dëgg semaine doo ko teg bët fii la nekk nit ñi di ko romb nit da koy jox cër warmaal ko te yàlla day denc xëyul la génne xaar ba mu jafe nag nga damay dem une semaine amul njariñ yàlla bu la ko joxee xamoo ko bis dina mu ne la ba mu am yombe fum ko koon jafe ko lool toujours dama koy wax ma ko loo gis rek xamal ni sa baay ba la waroon waaye ricc moo tax ñu cay ndaw ñu <laughs> see ñu cay ndaw loolu nag yi ñi nga xam ni yéenay waa daayira bi yéen laa ko jëmale kàddu gi bu mu leen dal ci benn sëriñ ku leen koo ngeen gis jàpp leen ni mën naa toog jotaayu Serigne Touba Cheikh Sidi Cheikh Sidi Moukhtar takk na saret màggali Touba man dem naa fa di ko wax sama kër gi booba bu daan taw guddi gi day daal fii nii tëdd naa deux heures du matin yëkkatil ko sama bopp ba mu taxaw ngir mu doon sutura ma dem tëddaan nelaw bu ma xëy soo ko woo ñu ma ko yëkkatil am na koo mas wax ni genn ruu ci kër ma ne ko déedéet yàlla mi ko sàkk bëtum bu rëy boobu ma dem wax ko sa Sëriñ Musaa mu ne ma àgg nga ci fanaane téye sàkket muy taw ci kaw mu ne ma déedéet mu ne ma ana sa maam ju soxna jaar ne ma def ko yitte soo ko defee yitte bis dina ñëw noo bëgg mu mel ko tey ba mu waree doon xalifa Sëriñ Baara sax si dax mi moo ko jëlee ci otoom teg ko ci teg ko ci kër gi mu wutu sëñ baara waaye lenn rek moo ma neexoon ci moom fa maanaam xàmmewul ba mu daan téye ay sàkket ak bi mu doonee xale bu sëñ Tuuba loolu moom biir sëñ Moussa Diaw xam ngeen ko feesul bëtam ndax sëñ baara rek la yaakaaroon ak yàlla mi fi nekkoon fële moo nekkaat fii sëñ Tuuba daa nekk ci géej gi bëgg a sëñ Moussa bëgg a dog di dogee ay xob yi garab ñi naan am ndox war a génnee muurum koor amul lu mu ko génne mu ne su ma ko amoon sax duma xam ku ma ko jox ndax wéet mu ñëw njaareem nit ñi dem bay dagg bay dal ci der bi ba mar ba nar ko xaw a gaañ sax mu ne leen dal leen yàlla moo wé ma ma ngeen jàpp ni moom laa wéetuloon fee moo nekkaat fii rek yàlla laa fa bàyyi moom laa fekkaat fii dal leen loolu daa ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax kon ñu ngi jégalu bu baax di di sant nag waa dëkk bi yëpp xam naa temps bi dana xat ci taxawaay bi ci toog yeeg toogaay bi yëpp di sant yaa Ndiaye bi nga xam tey moo fi teewal suñu waajur Mariama njaay di suñu soxna damay wax ni eh, nit ku nekk lu la yàlla defal sante ko suñu borom moom jëmmam sante naa ko suñu boroom ndax nit xel la xel lañ soxla ci nit bàyyiwuñu ci xel ci xalaat rawatina nag ci diine nag du la bàyyi benn yoon nga juum jëm ci àddina euh, da dama koy wax lu bari ma ne nit ñi jàpp nañ ñi soo dëkkee ci yenn dëkk yi diine moom dara nga ci dul am euh, moo tax sëñ Xaarim Fall soxna yi war nañ góorgóorlu surtout ñun kilifa yi suñuy soxna sëñ Saalum suñ Xaarim moom daay ñëw fii fekk ko muy julli mu daan tekk taxaw dama gis ko waaw mu waaw mu ne mu ne xam na ko ma toog mu ne ma a yombul de daal di yëkkati àddiyee jox ko ko ma ne ko góorgóorlu ndax kii lislaam doo nga ko ñor ay étage ñuru ko tabax ñuru ko dara ñor lislaam dong moo ko góor ma mel ni loolu ñaar laa ci jànge mooy kuy soxna si kilifa war ngaa góorgóorlu ci diine waaye ñun am na sas demee ba suñu saal maanaam bu gisee soxna si ci sa jëwam bi julli mu yéem ko mu loolu dafa raar am am nañ problème bu rëy wax dëgg yàlla jafe-jafe la ci kër yi loolu moom ñu nangu ko rek te nag kilifa buñ koy tànn jikko moo tax te jikko mooy moom moom la ko ak njabootam di wuutoo te loolu ci soxna la mën a nekk loolu nag sant nañ ko yàlla ci jëm ñaan suñu borom dëgëral taxawaayam lu man di am daal soxlawuñ ci moom lu dul diine diine rek lañ soxla ci moom Euh, loolu daal la ñuy ñaan te it sant nañ yàlla daal sëñ Modou si ñu ngi lay sant ba xam naa du ñàkk nga jël kàddu maa nga jox sëñ Modou ñaan wala moo guddi nan koy jox sëñ Xaadim Diagne jërëjëf ginnaaw nag bi ñu ñaanalee suñu waajur suñu sëriñ suñu sëriñ Sidi Mouhamed Mbacke mbooleem alxuraan di ñu fi jàng tey ak turu yàlla yi ñu fi tudd ak salaatu ala nabi yi ñu fi def lépp yàlla sotti ko ci ruuxam ak ruuxu waajuram ginnaaw bi ñu ko defee addi yonent bi alayhi salaatu ñëpp di leen baal àq ni ko sëñ Sidi Mouhamed waxee di nuyu kilifa yi nga xam ne fekk nañ leen muy sëñ Sidi Mouhamed mi ibnu Cheikh Sidi Mouhamed ibnu Cheikh Mouhamadul Amin ibnu xaadim rasul ak sëriñ xaadim mbàkke ibnu cheikh mu sayid ibnu sëñ Maodo Aïssa ibnu cheikh mouhamadul amin ibnu xaadim rasul ak sëriñ xaadim fall mi di doomi sëriñ bay fall moom sëñ Mor Ngom ak mboolem kilifa yi fi nekk ak sëñ góor a jëng bi moom waajuram Baye Abdou Karim baayam di sëriñ Baara Jëng sëñ Baara moo ko leewu ci boppam tuddee ko boppam nekkoon nii nekkoon fii ci ngumb waxatumaag nag maamam sëñ Mor Dieng ak sëñ Yaas Dieng kàddu gi nag di waxtaane Cheikh Mouhamadou Lamine dama ne ko moom dama ko koy bàyyee sëñ sëñ sëñ sëñ Sidi Mouhamed dafa wax kàddu yi nga xam ne man dama ci mat témoin ndax lenn lu nit di wax lu ne surtout jamono jii ñu nekk dama ko koy faral wax moom mii góor ni ko léegi nit dañuy téye fen ay kàcc dañuy téye defar ko defar ko defar ko ba mu nekk dëgg maanaam maa ngi jégalu ci baat bi moom ba mu nekk dëgg maanaam moom mi koy wax moom day jàpp dëgg ni dëgg la kooku la muy xam ne xam ne ay fen la moom sax day dem ba mujj day jàpp ne moom est-ce que li mu wax du dëgg nga bukki defoon daani xur aw ñay ñay dee na fa nit ñi fëx wuti ko mu toog ko ci yàgg mu ni ndek ku dem wax naa dëgg waaw nit noonu la yëpp dañuy téye du eh, dul dëgg wax ko ba yow mi koy dégg danga naan ñii lii muy wax dëgg la mu jaral leen waat jaral leen lu ne ñu wax ko ñu wax ko pour jàpp ne ñoom lii dëgg la jàpp ñi ci wax ñoom ci lañ leen di tege fenn ba duñ joom ba sosol si Sidi Mouhamed duñ joom ba sosol suñu xaadim duñ joom ba sosol sosol suñu Ousmane Sène ak keneen ak keneen bu wuuteeg nag baatu dëgg bu nga xam ne moom leer na la moom kii li mu kii li muy wax dëgg la ndax sëñ Sidi li tax mu yëkkati kàddu mooy kàddu yi sëñ Sidi Diagne mais doon wax des kàddu yi dëgg te lu jóge ci xol ci xol rek la mën nekk sëñ Sawa bi wax ni ci Sidi man waxuma Sidi mais baayam lay wax sëñ Sawa Diagne lii may wax nag waa dëkk bi wax nañ koo xam ndax man dëkk bi ci laa dëkk du ma fi samay maam la woon samay baay ak waa dëkk bi man ak ñoom kon du ma tund bi tamit du ma fi gan waaye bàyyi Moustapha ni kër sëñ Modou Diaw nekkoon wàccuwaay ca waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine loolu day wéy ba képp ku mos a taat bi ngumba it da nga ma yóbbu ma xaaj su ma mosaan a yóbbu jógee bu ma ñëwee Baye Moustapha baayam laa fi fekk moo xam waa kër sëñ Amar moo xam kër sëñ Cheikh Coro moo xam kër gu mu mën a doon bu leen yendalee ba ngoon benn mun leen da ngeen di fanaan ba suba ma ànd ak yéen yóbbu leen cekkeen ak yeneen dëkk yi wala mun la ndax da ngay gontam déet kon loolu moom loolu siidi fóoru ko def ko doon bi mu ko doonee ba pare nag dafa am pas-pasu nangu ko nangu koo jëfe ndax nit dana doon dara ba pare te du am pas-pasu jëfe ko dama suñ Cheikh Ndigal Fall waxoon daani ma Moussa ma ne ko mbàkke mu ne ma ku baax bàyyi sonn ku ma baax maam sonn ma ne mu ne ma ndegam am nga jom ku baax baay sonn ku baax maam sonn ndegam am nga jom kon moom jom jooju maam ak bëgg gi euh, lii sëñ Sidi Mouhamed doon wax moom du wér la te du du ma ni moom waxuma sëñ Sidi te waxuma sëñ Sidi waaye waajuram laa wax bu dee moom nag yaakaar naa matagul matagul ñaari weer bi ma fi jaaree ànd ak soxna Daba Mbacke moom Cheikh Moustapha moom sëñ Abdou Aziz ñoo ànd fi ak ñeneen ak ñeneen kon loolu Mbacke lii ngay wax lu dëgg la te du du du du du du du du am solo la. te lii soññ la ci moom it soññiwaat la keneen ku mu mën a doon ci biir kër sëñ Moustapha Diagne ak feneen bu dee kër sëñ Matar ña ak ñeneen ñi ci des ñoom it buntu ba ñu féete di sëñ Mbàkke kazaalika sëñ Moustapha mii nga wax nag ñoom nii ñuy doxe xam nga léegi taali bi day jàpp sax ak murit dëgg sax bu ñu góor a jëng ab murit dëgg la moo di góor a am na ay milliards wala am na ay millions ñu ne mënut woon a ñàkk ndax taalibe Sëriñ Tuubaa bàyyi si bi wala suñu xaadim mi am ab R4 plus lañ koy wax étage yore ab James yore nangam ak ñoom ñu ne mënu la woon a ñàkk ndax maamu ko liggéey maanaam yaa ngi sosal maamu yaa ngi sosal Sëriñ Tuubaa sëñ Touba moom àdduna bi ci biiram soxlawu ko soxlawu ci woon daaram dërëm dërëm dërëm dërëm bañ na ko ba ku fa mës a indi xaalis ak xaalis ba nu mu mën a toll danaan la tegal ne benn bis la ci mës a jox tegtal maam Thierno Ibrahima Fatick te dafa am loolu la ñuy wax ay jinax ñuy bëtt. rumbeeg yooyu ak yàqate këyit yi yooyu mu gis am pax fële moo xam ne jinax yi ñoo cay jaar mu ni seen borom daaru jëlal ci xaalis ci lële sakke ko pax borom daaru di jël ci xaalis di sakk pax mi di ko jël di sakk di sakk ba def kenn mu ne ko waaw nii dong la lii daal di dong lay sa njëriñ bunt kese waaye jarul ñu jarul rey sa bopp jarul <laughs> léegi ba démb am na koo xam wax wax na ma wax ju nga xam ne sax man dafa dem man ay anday sax ci li nga doon wax léegi rek ni ma ah sëñ bi de diw laa bëgg sama doom diw nga yóbbul ma ko ci sëñ Abdou mu ñaanal ndax doomu baayam yëpp ngi tukki ma ne ko ah mënoo ngay sëñ mu ni déedéet dafa xew ñëpp ngi tukki kon dafa war a mi ngi mel ne comme ni ñu jàpp léegi jàpp nañu ni Nicaragua ak Pérou ku fa demul tekki mu mel ne te xamuñu loolu balaa la balaa nit mi ngay wax léegi daal ni eh, Moustapha sëñ Moustapha mii wax na ko mu ñaanal. donga yi dooley poos tut tànk yi dooley poos waaw lu baax la yàlla ko suñu borom def ci barkeb Cheikh Mouhamadou Lamine waaye dooley poos yi buy buy egsi tamit dafa am oh, lu koy jiitu lu koy jiitu mooy nangu koo joxe am na ñoo xam ne ñu ngi ak dooley poos te ji sëñ Sidi Mouhamed mii bu fa ñëwoon yend ba ba ngoon jot mën nañoo yëkkati cent mille francs wala cinq cent mille jox du leen wàññi dara waaye 10 000 francs lañ koy jox jàpp ne jox nañ ko dara kuñ tasanteel wala ku leen koo ci bis bi ñu la sëñ Sidi Mouhamed ñëwoon na fi tey. Hmm? waaye yow jàppal ni sëñ Moustapha gis nga Cheikh Amar ah, kii ventilateur yooyu mu nekkoon ci biir jumaa bi daf koo mën def ko waaye ëpp la ci ëpp la yéen ci lool yéen a am ci ci def ko ca jumaa Tuubaa ji mu ëpp jëm am fopp te moom li mu mën rek ba desal la la la la ca def kon taalibe la mu njëkk a war a eh, mooy nangu bu nga xam ne day nangu bu nga xam ne du sax dàkk la ci moom ndax nangu rek du xasee ba am jeex ndax ki nangu dana am xolub joxe dana am xolub boo ko liggéeyloo tamit mu liggéey. kon yàlla na ko yàlla def ci ñoom lii mu wax ci bàyyi sii di tamit maanaam saabu du du fóot boppam ñoom ñii du ñu su fóot seen bopp sëñ Sidi Mouhamed sëñ xaarib lii may wax nag bàyyi maam ma mais mat na ci seede bàyyi gaañ bi ma mat na ci seede ñoom ñii mag hmm? sëñ mag jëw santul Mbàkke santul Bousso it dëkkul Mbàkke Kajoor dëkkul Touba it waalo la dëkk Cheikhul Khadim boole ko sëriñ Baara bi mu ko booleeg Serigne Baara Serigne Baara yebbi ko ci moom ba jeex tàkk yebbi ko gi ñu yegg ci moom ba jeex tàkk xam nga da ngay dégg Baye Moussa Ka daan li lay wax naan la. moom la ñu jagleel siral maxsuur siral maxsuur mooy da ngay xam démb xam tey xam ëllëg loolu wax ne ko Abdoulaye Ndiaye ba muy ñetti yoon mu ne ko Bousso mu ne ko yowmal xiyam sëñ Omar Bousso bu yéexee du la teg bët danaa la dugal àdduna àjjana ca kàttanu sëñ Ba suñu xaadim Fall mi xam na li may wax waaye Abdoulaye bi mu demee ba nekk mag jël fa day fukk ab xaftaanam rek di dox di dem bu ñu ko waxee danaan kër kër sëñ mat yow laa jëm kër sëñ mat yow laa jëm nga xam ne ci mujjëm noonu la doon noonu noonu la doon def beneen bi ci des sëñ mat jaw ñëw na fii ñuy rox sëñ Moustapha Sougou defe naa mooy waajuru maam yi ñee sant Sougou mu taxawu ko ñu koy rob nii sëñ bi ñu dem ba ko yor ci biir sëñ bi jekk ba ci yàgg di def nii kaala muun ba ñu del si ñu laa mu jëm ja daan leen muuñ gi ma doon muuñ de xanaa jaaxal na de ñu ni waaw mu ne dama xam ne sëñ Tuubaa man waaye damaa gis de Moustapha bi ñu ko yooree ci suuf rek yàlla dafa dafa mel ne dañoo randal suufas xaal indi suufas Tuubaa tegal ah, kon loolu li nga doon wax lépp bu dee nag yéen ci yéen man li may faral di wax ñoom ñii sëñ Sidi def na nangam du ma yéemu ci loolu maanaam ah, ah, gaynde fàdd na wala def na nang loo ci yéemu moom loolu la baaxoo du do jarul yéemu li jar yéemu ci moom kay mooy xëy na lu tax mënu ko te moom wax na ko gis nga ku sant Mbàkke wala même ku santul Mbàkke suñu xaadima keneen ak keneen ku sant Cheikh ba sant Diop soo ko gisee cër ba ko suñu borom ndax suñu borom du juum du jaawat la comment pourquoi kenn du ko wax suñu borom lu tax déedéet moom mooy seen la ko te suñu borom rus naa def fenn barke ba pare di ko di ko jëla kon warmaal leen leen ngir jëmmi seen maam jooju la na Messere doon wax naan diw buñ nee dafa baaxul waa baaxul waaye maam maamam baax na bu baaxul it maamam baax na alors que nag ñoom kenn kenn kenn gënu ci kenn Sëriñ Tuubaa moom lu mu ñaan du deltu ginnaaw mukk bis bu nekk sëñ Ousmane mi wax ko keneen wax zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa tayyib wa hab lana zuriyatan tuddiinu al amala saalihan ya xadim loolu nag ni ko nit di xamee moo di nit da xam na ngay tëgge tama wala defe nangam moo di sëñ xam na ni doom am na yamuwaay waaye ay sët moom amul moo tax ne yàlla defal ma ay sët sët moom kenn xamul fu muy yem mais doom moom mu nga ne sëñ Saali wala sëñ Murtada ci la amoon naa ko yem kon mbokk rawatina yéen waa daayira bi yéen waa dëkk nit su amee dara daf koy téye ak fukki loxoom ak juróom bari ki démb maa ngi koy wax waa gàtt mbaraam man de kenn nettalu ma si waajur sëñ Abdou Koumba Mbàkke laa fekk xomba ca daara ji mu ne ma de sama waajur bu jigéen de soxna Kumba Suuna moo ma masa a nettali lii fekk daf maa njëkk wax ni lii si Sidi waxoon daal sëñ bi de nit ki ñaar moo nekk ci moom xiif ak rek ma ne ko Mbàkke loolu de am na mu ne ma moom ñaar gi nit ki ndool dong la fay nekk xiif ak rek ma ne ko loolu am na mu ne ma loolu nag nit ki ci biirum ndeyam la koy fexe nee ma bu ci njëkk nag bu ci des du dël si xiif ak rek ñaar yooyu donc moo moo moo yor ñii dañuy xiif ñii rek mu ne ma nit ku ne nag sa biirum ndey la lay fekk nee ma bu ci nag bu ci des daal ma man dama rek sama biirum ndey laa daa may daal ma sama waajur bu jigéen ne sax da kumba suuna nee ma fekk booba ñu waxtaankat yi di di def rek naan sëñ baara bu masaan dem ci dëkk dañuy tëj jigéen ña parce que danaan jox leen ma diw xam nga ne te nee naa yooyu yëpp ay man dégg naa ba taay ñu waxtaan waaye kenn néewaguma dëkk sàngam gisaguma it ku ne ma sama maam ca la bokk wax ju ne day am dalit maanaam boo naan lii sa Baara doon na ko def wala sëñ Tuubaa da koy teg fu biir waaye sëñ Baara daana def nàngam dem na dëkk sàngam ñu jël jigéen ñi dugal ci néeg mu ne fii la fi nekk ñu ne ay bëy mu ne ay bëy de mais nañ wax ban dëkk la ki maamam nekkoon tamit duggoon ci biir ñu ne ñu def ko bëy na na wax ne man mi sama maam boobu aw bëy la na la nekkoon nangam kon mu ne ma loolu amul daal ma sëñ Baara dafa def bi yàlla jagle na am juddoo hmm? li mooy doon wax léegi bët mu ko suuru daal di luum maanaam loolu moom dañ cee bañ a yegg sëñ mi waxtaan sëñ Baara dana ca waxtaan xam naa mu ni mu ni dafa am ndax Cheikh Mouhamadou Lamine amul kenn benn soxna kenn ko am ni sëñ Cheikh Mouhamadou sëñ Baara dencoon na la bu faatu ci kanam kenn musta ñëw ni ko si gindigaale sa soxna sàngam musta am sa soxna sàngam si gindigaale déedéet mu daan ni sëñ Abdou ni ma sëñ bi moo waajuram soxna Kumba Suuna moo ko wax ni ko sëñ Baara kat dafa am soxna su nekkoon Mbàkke Kajoor ñu koy wax soxna euh, soxna soxna faatu Diop yaakaar naa bu ma juum nee soxna sa nag doon soxna su sel comme li sëñ Ahmed doon wax léegi ci ci soxna sell nee na ñu gis ko daal ni sëñ bi soxna soos de soxna su sell la tey ngaa ñëw jël ndax ku sell la ku mën a jaamu yàlla sëñ Ba dañu leen xeexee mën a du caagante ni ku ma gis rek. wala ku mel noonu rek jël ko daa leen képp koo la gis ma jël ko soxna yàllaa naan ma jëlal jiw daa ne képp ku ma jël soxna fépp fu ma jël soxna sëñ Ousmane sëñ Baara moo ne fépp fu mu jël soxna kookee soxna soo su mu jël wàllu ndeyam ñeen fukki junni buñ doon dem sawara yi yàlla dana leen dugal àjjana ci kàtt maanaam loolu nag boo ko dee weddi da ngaa jàngul ni nga ko ni nga ko doon waxee sànq ci abis wala ci alxuraan siiratu Muhammad yi Ousmane ñaata junni nit lay ramu te lu mu defal yàlla ci alalam kese mu ne ñeent fukki junni nag ci wàllu ndeyam bu leen neexee bu leen naqaree danañ tàbbi àjjana ñeen fukki junni ci wàllu baayam bu leen neexeek bu leen naqare danañ tàbbi àjjana te kenn du leen isaab loolu it day dellusiwaat ci lettre bi ko sëñ bi joxoon kon nag yéen yéen ñi bokk ak seen jàmm matagu leen ñeent fukki junni mata matagu leen ñeent fukki junni te xoola yàlla yàlla kenn ku ci nekk jullit yi sax sallallahu alayhi wa sallam la leen di ruse murit yi sëriñ Tuubaa la leen di ruse biir murit yi rek sëñ Baara la leen di ruse ndax dama koy faral di wax man su ma ko waxee wala sëñ Ahmed wax ko dañ naan lam ca bokk def waaye sëñ Baara Baye Moussa Ka bi mu koy wax bi mu way xarnu bi yaakaar naa ne boobu sëñ bi xanaa day soo a wàccu lëkk xarnu bi bi mu koy way ci kanamu man ñëpp la waaye dañ la rijaal yi xam nañu daraja su nee jalaj ñu safi jaam maanaam suñ baara pays yàlla bu rijaal yi góor yàlla yi toogee nii su góor yàlla yi toogee moom su leen fa fekkee ah su leen fekkee nii ñu toog su nee jariñ si bis ko ñoom ñëpp ci suuf lañ jëm ñoom ñépp ci suuf amul nag ma maanaam amul kenn koy bàyyi ci rijaalullahi amul koo ci bàyyi rijaal yëpp la ko tàmbalee ca jamono yi sallallahu alayhi wa sallam ba fa yàlla di wale buf rijaal bu fa mën a doon foom boo egsee bu sëñ baara egsee yéen ñëpp ci suuf ngeen di jëm ci gàttal sax boo naan ko rijaal yi yoon ña ñan ak ñan la mu wax la yow ñi nga xam rijaal yi nga xam lamp faal borom gaawaan Cheikh Ahmadou Ndoumbé Xabbaan Yiri Diaw sëñ Daaru Assane Ndiaye sëñ Daam Abdourahmane sëñ Mat Diaw Paxa Yiri Diaw mu ne ñooñ nag sëñ Baara ne nee ñu fekk lañ ca diiwaan ñu toog ci siis bu ñu koy.